waa gars yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi ci sport ñu war a ñëwee ci benn vidéo euh, joxe benn onze probable boo xam ne dana mën a baax pour Aliou Cissé xañ na ci onze keroog la ñu sukkandiku am quelques jours yu ñuy génnee dugal benn onze boo xam ne dana mën a fool max bi du dugal bii du jël bii te dana dugal ay bii te dana fool fool bu gën a rëy bu gën a extraordinaire bu ci fool keroog gën ko mën a gaaw mais laata ñu ñëw ci loolu dañuy wax yi ñuy gan ci page bi ngeen abonné te ngay bës ko notification bi pour ngeen suñu ootaaral fii ci sport dama gars yi comme onze keroog bu ñu ñëwee ci camp yi keroog Alfred Gomis moo ci nekkoon dañ koy dindi indi ki nga xam ne mooy Seny Dieng ndax mooy Moise Kean si nekk fa championship te du dafay góob mag si am solo te jël bi yu bëri. devant bi koy bay capitaine bi kenn du ko laal Abdoulaye Seck nañ koy dindi indi ki nga xam ne mooy mosaa Ndiakhaté nekk fële ci Nottingham Premier League def ay max si am solo après ñu ñëw ci latéral bi nga xam ne mooy latéral gauche bi fekk fa ki nga xam ne mooy Abdoulaye Ndour. dañ ko fay bàyyi mu gëna mu évolué nag kawe def max bu reey reey ñoo ci dara doon mu yus sabali momit suñu sañon ñu génnee ko ndax dañ max bu reey mi indi no noo nga pour ma ben benn max officiel gëna am confiance ñu gëna xol xalé bu baax ndax xalé bu am talent la ci milieu terrain bi nappes mbenn bu ñu xew ni kiy génnee indi ki xana moy part sujet pam matar ñu bayiko ak pap gi ñu départ mu nekk milieu terrain bu gaw lool ci ñaari excentrique yi Sadio Mané baax na fi mu nekkoon Iliman Ndiaye nga génnee Boulaye ja baye Habib Diallo mu départ ndax nga gëna xol xool baax mu Habib Diallo dina confirmé am déet bu ko defee deuxième bi nga ma indi ki nga xam ne Bamba jé wala Boulaye ja ah bo dee tamit tey nga am ci banc bi ku melna na Crépin bu ñëwé comme kérok baaxoon na di nga am ku melna na Nampalys Mendy bu ñëwé comme kérok baaxoon na mais ñun onction yi lañu gis bu ko tegee Sénégal mëna door dóor te jël bi ta fóor mëna gëna gaaw te tamit dina tax ñu xool équipe ndax am effectif bu rëy rëy ndax coupe de afrique lañ jëm te ñoo fay miir buute coupe de monde da nga war effectif boo da nga mën tourner 3 fois ba 4 fois par façon mu leer bo départ lo li ba nga mbitaa da nga mën a ci mbir mbita bi trop génn benn jour boo mbitaay da nga ma def 200 ma su ba nga def 300 ma def ñay ñaari ma ci deuxième mbita bi ndax nu bi metti metti metti da nga war duggal nu ñu sa équipe bi ay pour l'engagement ay niil yooyu yëpp ci qualification nga am temps gannaaw teel nga ma nga bii ñëw boo dóoree wala boo niiree nga qualifié teel a commencé bii ñeen nga gën nga gën kaa confirmé bu ko defee nga maanaam ay max balaa kaan ba da équipe boo xam ne équipe bu solide lay doon équipe boo xam ne équipe bu ñu bàyyi xel lay boo xam ne équipe ku nekk ñoom boo defee sa club di nga jëmee maximum de travail xam ne boo defee boo liggéeyul tuut même booy dugg dafa ay preuve boo ñëwee fi nga toog ci maay wala kenn du la woo ndax équipe nationale concurrence moo koy doxal équipe nationale ku nekk nga xam ne li nga mën am na ñaañoo ko dàq na ci mbaam moo koy defar mais bu leer na yow yaa man ñaañu na ci mbaam fuuf maanaam dooraayante ba jeex tàkk te loolu baaxu ci kii kon gars yi dama nekk vidéo wéy na nga abonné di commenter di partager like merci beaucoup am nga njëriñ bu baax a baax.